asalaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrice Mourchid TV ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk di ko fekk fa mu nekk tekk ci wàccuwaayam di dellusiwaat ak yéen rek ci seen émission Afia Afia nag comme niñ leen ko waxee woon nekk émission boo xam ne daf leen fekk ba seen biir kër indi leen ay médecins indi leen ay professeurs indi leen ay sage femmes ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci tawat yi nga xam ne moom moo nekk ci àdduna bi gindi leen ba kenn ku ci nekk xam fan lay teg tànkam tey nag dañ wax ne lu ay di te octobre rose mooy njàmbat te ku ko moom mooy jigéen moo tax tey ñu invité leen suñu ñaari sage-femme yu ñaawul yi pour ñu fas yéenee fekk leen fa ngeen nekk waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu jamono moom mooy jàngoro bi nga xam ne wax dëgg yàlla mun naa ne aller non retour la ci boo yéexee jóg kon loolu moom moo tax ñu invité invité leen tey pour ñu fas yéenee waxtaanewaat li nga xam ne mooy feebar boobu ba ku nekk xam fi nga ci teg sa tànk xam naa dañuy gestu rek ci suñu ndeyjoor Euh, nuyu madame Ndiaye Anta Touré muy sage-femme d'État euh, euh, di ko jaajëfal parce que woo la nga wuyu si neexul bi ñu ko woy daf ñu wuyu si ci li nga xam ne moom moo xew ki nekk ci suñu càmmoñ di soxna Khady Diop moom it jóge ba yëmbal moom it di sage-femme d'État fas ñu yéene jàppale ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane tey mu dellu ci octobre rose bi te bu ñu waxee octobre rose bi cancer moom moo tax du wax ñuy wax muy cancer du col de l'utérus ak cancer du sein mu nekk ñaar yoo xam ne mën naa ne ay farata la ci jigéen ndax bu ñu waxee utérus jigéen moom nga xam ne moom mooy jur bu ñu waxee ween jigéen mooy ki nga xam ne moom mooy nàmpal kon ñaar yooyu mooy nekk organe yu capital ci jigéen ci la ñu war a waxtaan tey ci jàngoro bi nga xam ne mooy jàngoro cancer xam naa dañuy bàyyi Anta mu nuyoo ak askan bi ñu soog a jox Xadi mu nuyoo ak askan bi Anta. waaw Taminta waa téléspectateur euh, Mourchid TV euh, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen ziar bu baax di jaajëfal ta Aminta ci invitation bi nga xamante ne invité nañu ci jotaay bu mel nii parce que ñun ñëpp lii rek la ñuy yàkkamti ndax askan wi ñoo ko soxla di rafetlu bu baax jotaay bi di nuyu nag ki nga xamante ni mooy borom télé bi di responsable moral Seydi Mouhamadul Moustapha si di ci teg suñ capitaine mm-hmm. ah, di ñaan yàlla rek jotaay bi li ci téléspectateurs yi di xaar yàlla def ñu indil leen ko di nuyu bu baax suñu mbokk Khady Diop mi nga xam te ne moom lañ bokkal ah, jotaay bi. incha Anta soxna Khadija. waaw asalaamaaleykum temps lay nuyu di euh, di nuyu temps Anta ñu bokk plateau bi di nuyu tamit ñëpp képp nga xam ne yaa ngi suivre euh, Mourchid TV rawatina émission bii di affaire. xam naa comme ni ko temps am la waxee rek ñu ngi kontaan ci invitation bi ndax euh, wax dëgg yàlla ku la yaakaar ba invité la mu alors que ñoo xam ne peut ñoo la suuf ci wàllu xam-xam yooyu noonu donc euh, ngay santé donc fas yéene indi kentalaayu kàttanu si suñu borom lépp loo xam ni émission bi laaj na ko ci wàllu li ñu war a waxtaane tey ñu fexe kaa indi si kàttanu yàlla xam naa dañuy tamit balaa ñuy daaneel suñu kàddu suñu kilifa. ak euh, suñu capitaine yàlla sàmm ñu leen aara ñu leen te seen biir kaaraange ak njaboot yëpp incha allah donc ñu ngi jégalu waat baax a baax ci kàddu yi wasalaamaaleykum amin waa xam naa Khadija euh, dañ wax lu ay di njàmbat te fi mu nekk nii ñu ngi wax ci octobre rose ku nekk mi wax ci octobre rose lan moo waral octobre rose ba ñu tuddee ko jigéen ñi. ñu ko temps aminta donc xam naa octobre rose léegi siiw na ci nopp nit ñi di ko tudd. auparavant daaw ñu ko woon dégg lu bëri mais gis nañ ni depuis mille 2010 donc mi ngi commencé dem emploi nànk-nànk te ñi ko initié mooy ñi ñu tuddee Waliska muy association bu moom dañoo jóg pour jàppale ñi nga xam ne ñoo am cancer rawatina soxna yi ci cancer du sein ak cancer du col de l'utérus donc ñu gis ni suñu dëkk euh, mbirub santé publique sensibilisation ñu war di jàllee dafay faral di des mm-hmm. imagine am na yenn kii yu bëri yenn feebar yu bëri yoo xam ne nii yaa ngi woon a xamee lu bëri ci boo demee hôpital ca accueil ba mais gis nañ duñu am jotu dalal malade bi ba koy euh, expliquer yenn feebar yooyu noonu rawatina feebar yi nga xam ne nii dafay lor comme cancer bi def kat li ñuy tuddee des journées de sensibilisation des journées de dépistage yi day dellu ci wàllu cancer du sein ak cancer du col de l'utérus nga xam ne dafa commencé gagner du terrain au niveau de notre pays ici le Sénégal moo tax ñoom ñu initié wu ci loolu ñu def chaque octobre bon ñu dañ fay dégg ñu naan octobre kat lay dal nit ñi mais dañ ne saaga boo gis jaa amoon na am na jàppal diw donc octobre dañ ko choisir pour mu nekk genre mois bu faar boo xam ne ñëpp si jugandoo defandoo sensibilisation yi donc mu nekk weer boo xam ne dañ ko tànn pour sensibiliser les personnes moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen moo xam ngay mag moo xam na ngay naw ndax boo nekkee si kër feebar ñëpp dinañ jóg donte yow jigéen yaa xew mais ñëpp dinañ jóg ndax ku góor ki moo war a joxe yenn xaalis yi pour yenn soins yeeg yooyu donc ñu si war a jàpp jàpp si moo tax octobre rose tey ji bi si doon tënk mooy weer boo xam ne tànn pour jagleel ko wàllu feebaru cancer du sein ak cancer du col utérus cancer du sein mooy cancer bi dal ween bu ñu waxee col utérus mooy buntu bu jurukaay bi donc cancer yooyu dafa dal nit ñi rawatina soxna yi nga xam ne mu lay dal le plus donc ñu jagleel ko weer boobu pour am plus de sensibilisation plus de dépistage pour wax nit ñi lan mooy cancer yi wax nit ñi seen manifestation ak amit euh, ñu bénéficier wu ci dépistage yi nga xam ne dañ koy faral di def donc loolu moo ko waral tey ñoom initié nañ ko ba yeneen groupement yi moo xam muy politique moo xam muy non politique donc yenn ONG ñu si bëri léegi dañuy am tendance bu octobre bu ñëwatee di ñu bàyyi waa Disca mais ñu koy def ay journée de sensibilisation de dépistage donc loolu moom moo waral octobre rose. Euh, waaw octobre rose dafa rose. kenn octobre rose dafa rose est-ce que mën nga wax askan bi rose boobu lan la màndargaal ci jigéen boobu. waaw taaminta question bi am na solo lool. te yaakaar naa xaddi sax brosé na ko ci biir waxam ndax buñ gisee jafe-jafe cancer yi nga xamante ni moo lëmbe àddina rawatina si jigéen ñi bari na de waaye daf ci am ñaar yoo xamante ni ñoo gën a fës muy li nga xamante ne mooy cancer bi jàpp ween bi ak cancer bi jàpp bunt bu tëdd njurukaay bi te association boobu tamit ka ka yëkkati ba indi ko teg ko teguñu ko pour seen bopp pour wan askan bi ne leen am na ñuy dund métit bii bu ñu sañoon ngeen ñëw àndandook ñoom dundandoo ko ba ñoom itam seen métit wàññeeku si ñoom ñu yëg ni bokk nañ ko ak askan bi yépp te itam yee ñi ci des ba ñoom li leen dal xëy na bu fekkee dafa yeex ñu dem teel a dem yeex a dem faju ji ñeneen ñi nga xamante ne yëgaguñ ne dal na leen ñu teel a dem saytu seen bopp saytu seen bopp boobu pour permettre leen faju ba yomb ñoom it coono ba njëkk ñi si njëkk dajoon ñoom ñu bañ ko daj xam nga li ñuy wax rek ne jigéen dafa généreuse ndax jigéen moom mooy yaay jigéen moom mooy lépp si loolu lañ manifeste pour org créer lii nga xamante ne moom mooy octobre rose pour yaatal information bi yaatal information bi te boo gisee boo xoolee sax ci hôpitaux yi boo xamee dem gis sage-femme bu ñuy sol blouse blouse rose lañuy sol parce que dañuy wane ni jigéen li koy représente toujours la rose ndax belli gi mu war a belli moo tax ñu ñu jël rose jagleel ko jigéen ñi. waaw am na solo Anta euh, rose bi firndeel nañ ko ci jigéen bu ci nekk soo bégulee féexuloo épanouir loo def naa liñ la yàlla sas ci penc doo ko mën a matale surtout boo feebaree te booy xool euh, ruxumu jigéen dafa rose dafa rose kon ñi ñi choisir couleur rose bi juumuñu. kon jigéenu Sénégal jigéenu àdduna yëpp liñ leen di ñaanal mooy kenn ku nekk ngay épanouir mais nga bañ a feebar feebar bi na nekk feebar boo xam ne macha allah ku nekk war nga koo xam pour xam fan ngay teg sa tànk parce que nekk na feebar bu metti nekk na feebar bu cher nekk na feebar boo xam ne li muy yóbbu bëri na kon feebar bi ku nekk war nga ko xam te jigéen bi nga xam ne moom la yàlla jagleel jur jagleel ko yar li ñuy ñaan rek mooy yàlla fexe ba jigéen ñooñ bañ cee bokk bañ ko am parce que tamit ñoom ñoo fi nekk di jàpp ci yokk xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon dañuy dëgg bu baax ci biir feebar bi te moom mooy soo soxna Khadija tey soo ma doon wax cancer lan mooy cancer maanaam nga jox ma définition boo xam ne mën naa ci teg sama tànk teg ci sama loxo xam ko nga jox ñu ko muy définition cancer. d'accord tant Aminta donc euh, yaakaar naa lu si bari. bala ngay dugg ci waxtaan di nga wax di nga xamal nit ñi la ngay waxtaan muy cancer boobu noonu donc cancer xam nga ñun suñu yaram dafa am yu sooy sooy ne moo koy composé d'abord dañu am ay cellules cellules yooyu def benn groupement joxe ay tissus tissus def benn groupement daa joxe benn cër cër yooyu boo koy emplacement joxe benn appareil donc tey jii bu ñu waxee baatu cancer mooy cellule boobu noonu nga xam ne mooy lu sew loolu di former benn tissu bay àgg ci cër. donc parfois dafa am ay cellules yoo xam ne nii dañuy faral di multiplier wu normalement mm-hmm. ndax xam nañ ni pour ñu ñun ñuy màgg suñu cër di màgg ce sont les développement des cellules la multiplication des cellules man naa de am cellule boo xam ne nii dafay jóg di multiplier wu mais de façon déréglée. déréglée aveuglément. mu ngi noonu kenn contrôlé wu ko. Mm-hmm. donc multiplication muy def day dem ba ñi mu dendal mu nee na wàllaale ci façon multiplication déréglée boobu. bu ko defee ñoom dañuy continuer def benn multiplication nekk benn clan ci biir cellules yu normal yi de ce dañuy dem di multiplier wu de façon anarchique xam nga bu ñu waxee anarchie moom xam ne ku nekk fu la neex rek aw nekk mu noonu ñuy multiplier di multiplier ba former benn boule donc boule boobu ñuy former parfois moom la ñuy wax tumeur parfois dafa am ay tumeur yoo xam ne ni c'est bénigne maanaam tumeur yoo xam ne ni amul benn gravité amul benn danger mais da ngay gis yenn saa dañuy am tumeur yoo xam ne c'est maligne maanaam boule boo xam ne nii kat feebar lay joxe à la longue baaxul moom la ñu tuddee euh, cancer les tumeurs malin moom la ñu tuddee cancer donc li ñu xoolee dina gis ni bul bi kat wala clan bi formé wu di multiplier wu de façon non contrôlée de façon anormale donc bu ñu defee yenn investigation yi dina gis ne que tumeur maligne la tumeur maligne boobu moom la ñu tuddee cancer te gis nañ ni dafay gën di propager comme li nga wax sànq boo si teewlu kii day gën di propager ndax ay cellules yu bokk si ñun di multiplier wu donc pour tënk ko rek mooy benn développement cellule boo xam ne ni c'était initialement normal mais mu mujj am une multiplication déréglée no contrôlée dem ba anormal ba wàll ñi mu dendal na benn boule nekk une tumeur maligne dans le cancer. tumeur maligne ku ko dégg dañoo yeewu ñu muus lañ ay cellules yu muus lañ yoo xam ne dañuy dajaloo rek pour fexe leneen lu ñu defi. génn ci li nga xam ne moom lañ lay sant te loolu nag bu ñu demee ba ci kanam dinañ xam kenn ku ci nekk nan nga mën a war a mën a téye sa organisme ba loolu yàlla mën la ci musal ante boo amee loolu dolli ci définition bi. waaw je pense que Khady sax nag wax na lépp. Mhm. ci li nga xamante ne moom mooy définition bi. Mhm. Euh, dañ koy misaal rek euh, boo yoree sa njaboot ci kër. Mhm. ñëpp nga yar leen. ñuy développé ni ñu war a développé woo. di dox ci say waaw. di la déggal. maanaam déggal bi mooy nit ki yaramam déggal na ko. cellules yi ñu ngi dox ci waawam. Mhm. maanaam ni ñu war a développé ñu ngi koy développé. Mhm. Mhm. am xale bu perte bu na ci kër gi. fi nga ko teg teguwu fa. li nga ko sant defu ko. mu ngi ci leneen di xool la ca biti nu mu koy lijjantee indi ko. kooku noonu ñëw ba am benn jikko boo xamante ne li nga doon xaar ci kër gi. pour njaboot gi defal la ko moom dootu ko defati. li ko neex lay def maa lànk maa tey lay def lu ma neex laa koy defee mhm. kooku dootoo ko contrôler mhm. wala boog du yomb nga contrôler mhm. bu boobaa boo ci jógulee ci moom ñeneen ñi xale yi ci kër gi sax da leen di wàll si jukko boobu bu leen wàllee si jukko boobu nag sa kër dootoo ko gérer boo gérer sa kër nag mënoo gérer ñi ci des maanaam bu ñëwee ci ween bi la commencé cellule boobu la nekk bu fekkee foofu la njaboot googu yëpp mu jaxase leen comme ni ko Xadi waxee ne ñoom ñooy cellules yi ba ñëpp topp ko ci loolu Xadi mhm. wax na sax ne ni muy développé dafay anormal mhm. maanaam buñ doon multiplier wu di def diviser wu di nekk ñeent ñaar mhm. ñeent juróom-ñett di ko multiplier normal bii day ñëw di multiplier nu ko neexee ay milliers ay milliers muy gaaw moo tax am na fu muy toll rek. Mhm. moo tax seen multiplication dafay excessive. Mhm. beneen bi ci tegu tamit cellules yi ni ñuy multiplier woo noonu la ñuy renouveler woo. Mhm. am na si yoo xam bu ñu dee ba yenn fi dañu leen di éliminer. indi yu bees. mais ñoom bu fekkente ni cellules yi cancer yi la. day dem sax ba ñuy war a éliminer. du ñu la éliminer dañuy dañuy nekk matatuñu sax. mu bàyyi leen ci biir yaram bi. mais loo xamante ne baaxatul. ñu war ko éliminer mu bàyyi ko si yaram bi daf lay yàqal. muy indi. de cancer bu amee benn fu muy toll rek mu développement bi dafay gaaw dafay rapide mhm. mais mën na nekk si yow silence ya boobu mu ngay dajale ay njabootam di ah, leen di ut ñu muy yàq ñu muy mhm. dajale ba mën a mhm. egg foofu loolu daal lañ bëggoon yokk ci euh, définition bi ñu xam ne feebaru cancer bi benn cellule mooy ñëw rek di multiplier wu multiplier wu def lu ko saf ci biir yaram bi mhm. ut ay ñeneen ñum ko collaborer mhm. ba ëllëg sax mën na génn bu fekkoon ci ween bi la commencé mën na génn ci ween bi dem feneen feneen lay laal beneen organe boo xam te ne mhm. mu ngi ci yaram bi te fekk ne fële la commencé woon loolu daal nga kon daal téléspectateurs yi ñu leen wax ne virus mooy joxe cancer dégg ngeen ni ñu waxee ne noonu la cancer di duggee ci nit multiplication de cellules la multiplication anarchique bu rapide bu ñu demee ba multiplier wu ba dajaloo def benn boule boule boobu moom la ñuy wooyee tumeur. Mm-hmm. su yii c'est bénin wala c'est maligne bu fekkee se bénin nag am na farata boo xam ni nit ki war na ko def pour xam li ne ci moom lan la léegi nag ban objectif moo tax ñuy waxtaanee cancer. voilà bu delloo ci objectif yi d'abord li tax ñi jar a waxtaanee cancer bokk na si ampleur bi maanaam bëriwaay bi parce que. chaque année ngay dépister ay junni junniy nit te heure boo dépister di am tamit ay junniy cas donc dafay gën a yéeme. Mhm. nga gis ni ñu ngi ñu ngi sensibiliser ñu ngi ñu ngi wax mais aussi ñu ngi détecté ay mhm. cas tamit. Mhm. amu fekkoon ni sax au moins année dina jëm ñu ne ah am nañ cinquante cas xam nga cinquante cas neex naa neex naa gérer tuuti mais des milliers de cas. c' est un mu ngi noonu dafa xaw a bëri. moo tax premier objectif bi li tax ñu war a bi moo ñu xam ne feebar bi existe na existe na. am na aussi bëri na. Mm-hmm. bëri foo ko takk weesu na ko. Mm-hmm. donc tey jii nii li gën di tax aussi ñu war a def tamit sensibilisation bokk na si objectif yi donc ñu xam ni feebar dafay lore. Mm-hmm. feeb dafay lore lor bu gaaw ndax ni ko tànta waxee bu fekkoon dafay ñëw sa yaram yam fa mu yam fa mu nekk dong du am problème mais parfois di nga faj nit ki cancer ba mu wér ñu ne wér na cinq ans après wala dix ans après feneen génn. donc ça veut dire que defoon na métastase donc nekk na loo xam ne dafay lore tamit mooy cancer bu moo xam di sein bi la wala moo xam col de l'utérus bi la donc beneen objectif bi waral sensibilisation yi aussi ak dépistage yi mooy gis nañ ni gis biñ ko mën a gisee bu gaaw bu rafet ci nit ki mooy les dépistages kese yu si bëri am na ñoo xam ne ni confirmé nañ seen cancer à travers les dépistages lañ ko gisee te gis nañ c'est très simple parfois kii bii nii octobre bii ñu maye ay dépistage nga dem benn xool bu ndaw bu lay xool am nañu suspecté si yow ne la référé nañ la sangam nga pour nga defaat yenn examen nangam noonu lañ koy toppalantee ba nga xam ne li ñu gis dara la wala du dara. Mm-hmm. donc diagnostic bi c'est très simple muy le dépistage bu fekk après dinañ fi ñëw ci biir waxtaan bi ween bi dépisté bi yomb na. Mm-hmm. col bi nit ñaa ngi koy organiser. Mm-hmm. même en dehors de octobre rose bi soo demee hôpital rek. ma bëgg kaa def mun nga ko def donc mu ngi noonu ku nekk mën na ko saytul boppam beneen bi li tax ñu war a tamit sensibiliser nit ñi mooy wax leen ni faj bi cher na traitement cancer ku nekk xam na ni cher na metti na aussi gudd na nekkul lu lu yomb parce que mu nit ki mënul ñëw daar daar ñu ne ko am nga cancer noonu parce que yenn maladie balaa nga koy informé nit ki war nga def des examens des analyses donc ay bilan yoo xam ne nii moo lay permettre mën a regrouper toutes les confirmations qu'on a pour mën a nga informer malade bi moo tax faj bi cher na metti na aussi gudd na ndax li ma koy waxee cancer mooy feebar bu baadoola boo xam ne nii mën na lekk li nga yor mhm. lekk say sa waa kër ñu ñu yor lekk say famille li ñu yor ba amatoo loo ko jox mu jël sa bakkan donc nekk na feew boo xam ne xaw a doy waar la donc euh, beneen sens li tax objectif bi tamit gën a am njariñ pour ñu koy xamal nit ñi mooy ñuy def prévention bi te prévention bi aussi comme ni mu ko waxee yomb na te un simple dépistage donc un simple dépistage plus les autres mesures hygiéno-diététiques ak euh, hygiéno alimentaire donc dina la permettre nga mën a saytu sa yaram ba nga xam ne loolu su dikkee du la du la gagné donc si tënk rek wàllu objectif bi loolu laa ci doon indi ñu bàyyi temps complet incha allah. waaw yaakaar naa sa xadi xanaa ramassé na ramassé na lépp li nga xam te ma objectif bi mm-hmm. yokk ñu koy ñu koy def lenn rek laa si doon effectivement xam nga jigéen moom mm-hmm. mooy cëslaayu kër mm-hmm. jigéen mooy cëslaayu kër bu lompañee rek kër gi lompañ na lompañ na ci poos lompañ na ci dund lompañ na ci épanouissement parce que lépp moom moo koy gérer lépp day tourner autour de yaay ji ci kër gi kon nag yaay jooju tey buñ ko gaarul ci mu fegu ci mu faju ci mu moytandiku day xaw a doy waar moo moo waral ñuy def kii octobre rose yi di wax tamit di def ay dépistage di organiser wu pour femme jigéen jooju mën a fegu ci li nga xam te moom mooy feebaru cancer yi Xadi wax na ko ne na feebar bi dafa cher maanaam faju bi dafa xaw a cher. xëy na sax am na ay mesures yoo xamante ni état jël na ko pour mën a jàppale jigéen ñi. ci faju yooyu. ci wàllu subventionné yenn traitement yi mais du yëpp. Mhm. wala bu ñu bu ñuy bu ñuy subventionné du du subvention boo xam total la mais c'est partiel. Mhm. mais au moins c'est quelque chose. Mhm. Euh, jigéen ñi tamit bu ñu defee seen dépistage yi nga xamante ni seet nañ leen pour xool ndax am nañu feebar wala amuñu ko. léegi nit kooku noonu mu ñëw ñu seet ko ne ko am nga am nga lu ñu gis de xadi wax na ko nee na du ñëw rek ñun la am nga feebaru cancer parce que dafa am processus bu ñu topp xëy na sax danañ ci yegg si ci biir waxtaan waaye pour wax rek ne jigéen ñi bu ñu ragal di dem di seet seen seen wér yaram parce que ci loolu la ñu mën a xamee ndax ñoom am nañ lu suspect wala lu suspect wul lu ñu nee suspect nag mooy lu xaw a nduru jàngoro bi lu ko lu ko nduruwul nit ki nag comme njortu la foog ñu dem xool li ngay njort ndax loolu la wala du loolu soog a mën a libérer nit ki waaye li ñuy wax daal ci objectif bi ñu mooy ñu fexeloo bàyyiloo xel jigéen ñi ñu bàyyi xel ne feebar bi am na faju bi metti na cher na te yàgg na te bu fekkee teel nga jóg yooyu yooyu yëpp mën na mën na bañ a mën na ñàkk mën na ñàkk kon ñu bàyyi xel ne dépistage yi farata la. farata la waaw kon téléspectateur yi def naa ñi nga dégg yéen a ngi dégg mbokk yi li ñu fi wax léegi mooy dépistage yi farata la. waaye nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy dépister en général léeg-léeg danga leen di dépister am loo gis rek ne la dama defi analise ñuy tiit mais bu ñu tiit. ndax ki la mhm. dépister tey mënu la wax ne am nga cancer. Mhm. foog nga def analise boobu ñu xool yow li nekk ci sa kanam lan la. su ñu xamee lan la loolu dañ koy topp ba xam exactement ndax cancer wala déet te processus bu gudd la. kon du lu ñu loo xam ne danga koy xam tey am na ñoo xam ne dañu ragal a dem def dépistage parce que dañu ragal ne suñ demee dinañ gis cancer ci ñoom ñu wax leen ne dépistage yu tey tey mënoo ci gis cancer kooku dafa lay ubbil yoon rek boo mën a jaar pour nga dem faju ci kon ñu ñaan ñëpp rek ñu dem faju ci parce que tamit jigéen cëram ci biir kër mooy mu toog épanouir njabootam wër ko mais bu feebaree rek mën nañu wax ne kër gi yëpp feebar nañ mm. euh, léegi nag euh, Khadija dañu dugg ci diagnostic bi xool ban diagnostic la mën a def ci cancer boobu pour nit ñi mën a xam parce que tamit euh, am na loo xam ne dañ koy liggéey ci hôpitaux yi du loolu yëpp la ñu war a mën a wax nit ñi parce que lii ñuy wax nit ñi mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp ba mën a dem jéego seen mën a dem fajo ji wala ñu mën a ñeme pour mën a dem fajo ji wala ñeme pour mën a dem dépistage mhm. léegi dañuy dugg ci dép ci diagnostic bi pour à peu xam exactement naka la ñu mën a diagnostiquer loolu nga xam ne moom mooy cancer. xam naa bu delloo ci point bi nga indi. dinañ indi d'abord facteur de risque yeeg cause yi mhm. parce que boo nee feebar di nga war a wax lan moo koy joxe mhm. wala boog lan lañ njort ni moo ko mën a joxe mhm. tey jii bu delloo ci wàllu canceru ween bi mënuñoo wax ni exactement lii kat mooy joxe cancer du sein xam nga lool c'est un peu compliqué tey jii bu fekkoon ni comme sida dinañ wax ni VIH mooy joxe sida bu fekkee beneen feebar ñu ne agent sàngam moo joxe feebar nàngam mais bu delloo ci wàllu cancer c' un peu complexe. Mhm. munoo jàpp ni nangam bii kan joxe cancer donc ay facteur de risque. nga mën a nga mën a teg. Mhm. delloo bokk na ci facteur de risque yi te loolu yaakaar naa bi ñu ko tuddee donc benn jigéen épargné ko. te mooy l' influence des hormones. xam nañ ni jigéen mhm. am na ay hormones ay substances nekk si yaramam. moo xam bi nga xam ne day permettre muy développer wàllu les caractères sexuels secondaires yi ween yeeg doon si aaju féminité am donc am na yeneen xeetu hormones yoo xam ne nii ñooy manifesté wu pour euh, meew bi génn ci ween bi am na yeneen xeetu hormone yi téye ay grossesse à genre donc am na ay façon hormones yu bëri yoo xam ne nii mu ngi si yaramu jigéen. Mm-hmm. mais bi si gën a faara ñi si gën a téye mu ñu tuddee les oestrogènes. oestrogènes yi moom am na xeet oestrogènes yoo xam ne yu bëri. Mm-hmm. dañ koy boole ci les oestrogènes. Mm-hmm. donc influence ormone yooyu noonu bu ñu ko tuddee rek. xamal ne képp kuy jigéen yow épargné too ci wàllu cancer bi donc facteur de risque majeur bi mooy l'influence des hormones bu delloo ci wàllu cancer mhm. du sein bi mhm. euh, beneen bi tamit ci facteur de risque yi ba tey ñu resté foofu noonu ci cancer du sein bi bokk na si ñi nga xam ne nii euh, am nañ âge boo xam ne ëpp na juróom fukki mhm. mooy les ménopausées uh-huh. donc ñooñu gis nañ ni terrain lañ pour euh, développer un un cancer dinañ si ñëw nag ci biir a nekkul ni bu ñu waxee âge boobu rek képp ku ko am rek da ngay kii non non mm-hmm. tuddee facteur de risque mooy mën nga ko am comme mun nga ko bañ a am mm-hmm. donc loolu lañ tuddee facteur de risque mm-hmm. beneen bi bokk na si ñuy wax nulliparité mooy ko xam ne ni mosul am doom day dugg ci biir facteur de risque yi. wala koo xam ne ni yéex na taawlu ba muy taawlu ëppal na fanweeri at ak juróom. mooy li ñu tuddee les primi age donc ñooñu aussi gis nañ dafay dugg ci biir facteur de risque yi. beneen bi mooy facteur héréditaire et génétique. parfois dafay topp famille. day am yenn famille yoo xam ne nii. comme diabète bi ni muy toppee ay famille ñu koy toppalante di ko wàllante descendant par descendant mhm. parfois aussi dafa am boo xam ne dans le gène dañuy am gène cancer boobu noonu ko defee ñu koy toppalante de génération en génération donc yooyu dafa dugg facteur risque yi mhm. bi mooy ñu ngi tuddee les ménopause tardive mhm. mooy ñi nga xam ne nii dañoo yéex a ménopause donc yéex a arrêté kii waaw parce que Euh, sous l'influence des hormones dañuy def euh, li ñu tuddee chaque mois ñuy gis suñu ay menstrué mhm. donc am na sa yaram benn âge bu muy toll mhm. war na tax nga arrêté mhm. euh, menstrué yooyu noonu d'où l'importance de euh, de la ménopause léegi nag bu fekkee yow da nga ba sa yaram àkk àttanatul hormones yooyu noonu diisaay yooyu noonu alors ko yow yaa ngi continuer muy nekk sa yaram donc c'est facteur de risque pour yeneen feebar di la xaw a sonal. Mhm. ci âge bi nga xam ne ci nga ci nga nekkee. Euh, beneen bi mooy euh, li ñuy tuddee puberté précoce. Mhm. mooy xale yoo dañuy teel a gis mbaax. yooyu aussi hormone daf leen di teel a gane si. Mhm. donc gis nañ ñi nga xam ne dañuy teel a am influence hormone yooyu ak ñi nga xam ne dañuy yéex a jóge ci influence hormone yooyu. donc yooyu yëpp xam nañ ne xale yu yaramu xale fragile na yaramu mag fragile na. donc ay facteur de risque la ñoom aussi dañuy duggaale ci ci biir beneen bi mooy femmes yi xam ne dañuy utiliser tabac wala alcool maanaam ñoo xam ne dañuy tuux wala ñuy jël alcool donc yooyu yëpp ci xeetu facteur risque lié beneen bi mooy ñuy def contraceptif oral lu yàgg maanaam ñoo xam ne dañuy jël ay pilule xam nga suñu mbokk yi dañoo xaw a féex dañ leen wax noppalul deux ans wala trois ans ñoom ñu dépassé cinq ans yi dem te boo xoolee les méthodes planificatives bi si gën a gudd bi am garab cinquant la yam muy jadel bi mhm. donc yi si amul garab moom moo gudd dem dix ans treize ans muy appareil bi DEI bi mhm. donc tey jii ki nga xam ne nii dafa bëgg a def longue durée mhm. na jël bi nga xam ne ni amul benn garab c'est pas l'importance du débat mais foog mu dugg ci ndax facteur de risque la les contraceptifs yooyu yàgg yooyu noonu facteur de risque la pour un développement du cancer du sein moo tax ñu ko ci indiwaale donc ñi nga xam ne dañuy utiliser benn contraceptif oral yi nga xam ne nii c'est hormonal donc bu baree ba bëri na yem ci trois ans wala cinq bu jotee ñu arrêté ko mhm. donc moo gën comme ça au moins ñu épargner seen bopp benn facteur de risque boobu noonu beneen bi mooy l'inactivité physique gis nañu jàngoro boo indi moom. Mhm. ñàkk yëngatu ñàkk def sport dafay dugg. donc lu fait ñuy toog ndax obésité sax gis nañ ci facteur de risque la. Mhm. obésité mooy ñi nga xam ne dañoo pata. am yaram graisse gi bëri seen seen kii. Mhm. donc ñun ay facteur de risque lañ donc d'où l'importance nga def ay yëngatu. donc bu fekkee marche la sax baax na ak lu mu ci doon sport ñu ne ñu ngi ci kër gi. mi ngi noonu alors ko loolu sport loolu sport dafa am yoo xam ne ñu tuddee les les efforts physiques yow comme mason biy liggéey danaa ma sama liggéey dafa metti du jar may def sport alors que yow liggéey bi li mu laaj dañ nga koy jox moom moo lay dominer. Mhm. bu fekkee dafa diis di nga fexe ba yëkkati ko. Mhm. su fekkee da lay gaañ di nga moytu ba defar ko. Mhm. alors que sport c'est bien programmé dans l'espace ak heure. ndax au moins di nga jël benn 30 minutes boo xam ne nii juste pour defar sa yaram la nekkul liggéey bee dominer mais yow yaa def exercice bii nii yaa koy dominer pour jéem gérer sa yaram mm-hmm. d'où l'importance de faire des sports moo xam ko jigéen ki la moo xam ko góor ki la donc ñu ràmbal ñi nga xam ne dañuy fara def hormonothérapie mm-hmm. hormonothérapie moo ñi nga xam ne dem nañ ba âge ménopause mais gis nañ ni yenn signes yi daf leen di faral di sonal signe ménopause donc am na ñoo xam ne dañuy jël ay loo xam dafay combler façon signe boobu noonu parfois doo fa tolloogum sa mais am na yooyu manqué yenn envie yooyu manqué ngay jël ay substances hormonales di ko dolli sa yaram pour nga gën ko kii donc loolu à la longue ñiy def ay hormonothérapie de dix ans genre yooyu noonu donc sous l'influence des hormones la xam nga donc facteur de risque la pour mun a kii léegi dañuy ràmbal rek dugg ci quelque facteurs de risque cancer du col bi bu fekkee facteur de risque cancer du col bi boobu mun nañoo indi benn agent causal bu ñu mën a teg suñu loxo te mooy le virus HPV. donc human papillomavirus bi. gis nañ ni su nekkee si ñun. mën nañoo dëkk moom fukki atu feebar bi soog mën a déclenché wu. donc yi nga fukki at nu mu toll bu fekkoon chaque at nga def dépistage est-ce que balaa muy déclenché doo ko gis. ñu ngi noonu te li gën a yéeme suñu mbokk sang yi ñoom ñooy porteur sain bi. virus bi si ñoom la nekk. mais bu ñu àndeek euh, soxna si wàccee ko fa virus ba. à la longue soxna si moom mooy feebar donc du ñu duggaale ci comme facteur risque les infections sexuellement transmissibles ndax bëri na infection yoo xam ne nii ku jigéen ki moo koy développé mhm. agent causal yi si bëri ci ku góor ki la nekkoon mhm. mais puisque góor <clears throat> ñu nee naa suñu yaram moo gën a tijjee ko mhm. moo gën a ruqee donc tey jii li ñu fa bàyyi rek à la ñun ñoo mën a développer feebar bi donc bëri na traitement yi ñuy def di jox borom kër yi garab ñuy bañ alors ko la dal soxna sa amaana sax moom moo ko jox moo tax facteur de risque la aussi muy infection sexuellement transmissible yooyu noonu ak euh, virus HPV boobu noonu ñu wax sànq donc yeneen facteur de risque bokk na si les astuces nga xam ne jigéen moom la ñu fay utiliser lu nekk ñu def seen kanam certains produits yi moo xam chimique la moo xam donc bëri na exactement léegi nag pour diagnostic bi ñu ñëw ci carrément bokk na si les signes parfois di nga am signe yoo xam ne nii moo lay faral di sonal mhm. lii tax nga jug dem hôpital xam nga ñun moom xamuñu faju à temps pré prévenir li ñu naan fagaruñu xamuñu ko li ñu xam mooy dara dal ñu rek sonal ñu dem mi ngi noonu tey ji bu fekkoon sax kuy dépister boppam comme weeni bu ñu la waxee chaque mois boo gisee règle ba pare au à partir du dixième jour nga def say palpation mhm. kii fay def palpation bu dajee doon bu mu daaw woon daj mhm. xam nga loolu dina ko mu jóg dem saytu ji ko mais imagine koo xam ne daaw def palpation daaw def dara. du xam du xam lu am ci weer. voilà day yàgg sentir ne weeram kat mi ngi diis mi ngi metti mhm. wala mi ngi am ay quelques écoulements wala ay changements soog a dem def def ji. voilà mu ngi noonu soog a dem def ji consultation ñu soog a mën a diagnostiquer. moo tax kiy mën di def dépistage chaque mois nga xam di nga miin sa ween dina la permettre tey jii nii boo gisee lu la jaaxal nga dem hôpital ñu seet la defalee la exemple pour mën a diagnostiquer mhm. feebar boobu noonu. donc bokk euh, kii yi. ci diagnostic yi bu delloo ci wàllu buntu butis njurukaay bi parfois da nga gis ni soo àndee sa borom ba pare mën nga gis deret mm-hmm. maanaam boo àndee sa borom kër pare nga gis ne yaa ngi gis deret mm-hmm. wala booy sëy muy metti wala yeneen xeetu signes yooy faral di di am mm-hmm. donc yooyu noonu parfois dina dal nit ki mu jug dem hôpital bu demee hôpital ñu xool bunt butit bi ñu xam ne ah kii kan am na ay gaañu gaañu nekk si bunt bi bindoo ko ay soit les ay échographie bindoo ko par par exemple ay biopsie ay donc façon examen yoo xam ne nii mooy renvoyer à ça ñuy def loog ko nànk nànk nànk nànk donc gis nañ ni pour bañ a tëye kàddu gi lu bëri diagnostic euh, kii bi diagnostic bi mhm. surtout mu ngi reposé wu ci signes yi nga xam ne nii mhm. malade moom lay faral di am mhm. sinon mu defoon dépistage comme ni nga wax dara ñu njort si dara daa koy orienté mu dem au niveau des hôpitaux donc ñu wàccee foofu suñu kàddu waaye am na lu mu wax de ci papillomavirus bi ci suñu mbokk sang yi lay jógee est loolu du indi problème ci jigéen yi <laughs> te tamit ku jigéen ki bu bu fekkee am na lu mu gis ci kanamam bu demulee seet ko du xam ndax mi ngi ci moom. Mm-hmm. est-ce que mën na am dépistage avant. waaw taaminta <laughs> xëy na sax comme ni ko Khady waxee ñaari question la yu duggante. Mm-hmm. muy les facteurs favorisant ak euh, causes yi wala tamit ñëw indiwaale diagnostic bi. Mm-hmm. xam naa damay tontu sa question doo ko mën a yeggaat facteur facteurs favorisants yi pour bañ mu rëcc ñu. ndax danga ni dafa xaddi ko ni ko waxee dafa ni euh, papillomavirus bi ci sang yi ñoom ñoo koy yor bu ñuy jaxasoo ak jigéen bàyyi ko fa xam nga li may faral di wax rek jigéen moom dafa am ni ko yàlla bindee ni ko yàlla bindee bokk ak ni bindee góor góor raxasoom yomb na waaye jigéen jaxasoom yombul lu fa xas ba dugg génn ba du yomb moo tax toujours rek jigéen ji dépistage yooyu mu war di ko far di def mais boo gisee ci sunu mbokk tubaab bi ñoom balaa ñuy def mariage dañuy def ay ay examen prénu prénuptial nga xamante ni kenn ku si nekk di nga saytu sa yaram ci biir ak ci biti ba xam lan moo ci nekk balaa ñuy àndandoo di jaxasoo bu ko defee bu boobaa bu fekkee ko góor ki dafa def test bi ñu xalaat ne gis nañ ko ci dinañ ko mën defal un traitement avant moom muy séq ak soxnaam bu ko defee. xam nga xaddi wax na ci facteur favorisant yi ne jigéen bu dee ci cancer du col de l'utérus mu ne jigéen ji nga xamante ni dafa teel a jaxasoo ak góor boobu nekk na jeune jaxasoo na ak góor te fekk na góor googu amoon yoroon na li nga xamante ne moom mooy doomu jàngoro bi li nga xamante ne mooy papillomavirus mu yor ko bàyyi koog moom xëy na moom fàtte na sax ba mu def ay at mu doog a sëyaat ba tey doomu jàngoro baa ngi fa ndax faju ko. xoolu ko ba sëyaat ci ba mu def ay at mu am lu muy yëg ci yaramam mu amee lu mu yëg ci yaramam ñoom ñu xool ko ñu gis ne am na fi doomu jàngoro bi xëy na tey sax bari na ay yoo xamante ne moom la ñuy def pour mën a am def diagnostic bu boo xamante ne dina précoce comme yegguñ ci duñ ci duñ ci waxagum mais pour wax la ne facteur favorisant yi mu ngi fi mais nag facteur favorisant ci waa cancer ween la gën a ëppee ndax bee sax da ngay dut baaraam ne papillomavirus moom moo koy joxe ndax sànq si sa kàddu dégg nañ ko ñu wax ne cancer c'est rare nga gis ne bii nii mooy joxe cancer bii mais yi mu am yépp dañuy identifier ne lii bu nekkee ci yow soo teelee faj mu wér soo ko fajulee mu indil la cancer parce que am na fu muy commencer avant muy egg foofu mais bu fa nekkee infection la infection ba boo fajee mu wér soo fajul nag mooy dem ba egg ci cancer mais bu fekkente ne ci côté ween bi la ci côté ween bi dañ ne facteur favorisant yi moo mënoo dut baaraam ne lii moo waral cancer du sein bi waaye jox nañ la ay yoon yoo xamante te ne mën na la yaakaar loo ne bu nekkee bokk nga foofu mën na la indil cancer du sein xadi wax na jigéen ji nga xamante ni dafa dem am juróom fukki at jigéen ji am juróom fukki at maanaam jàpp nañ ni kooku ménopause na bu xasee ba ménopause parce que am na hormone yoo xamante ni nekkoon na ci moom wàññeeku na tey am na signe yoo xam su ko gisee rek war na jàpp ne war na dem xoole ji sage-femme wala médecin mu xoolal ko euh, nulliparité ki nga xamante ni mësul mësul jur xëy na yemuñu dañu wax ni mësul jur parce que jigéen ji bu ëmbee bu ëmbee am na hormone boo xamante ni muy gën a dominer dina def pause beneen hormone bi nga xamante ni moom nga dul baaraam sànq bu boobaa moom ci biir ëmb bi œstrogène boobu li muy li muy sànni du bëri li mu nekk ci yaram bi du bëri dontal dina am ndax bële moo koy dominer muy progestérone bi ndax moom la ñuy wax euh, euh, hormone de la grossesse xam nga kooku bon am na loo xamante ni war na benn frein ba mu teg ndaxte dugg na ci ëmb hormone boobu bloqué na beneen bi tuuti pour benn pause bu un certain temps après nga def sa allaitement nga am na ñoo xam ne sax bu ñuy allaité ba deux ans yi hormone boobu day gën di développer muy progestérone bi ba li nga xamante ni mooy seen règle sax duñ ko duñu ko gis euh, am na tamit beneen ba mu wax mu dellu ci euh, traitement hormonal bi xam nga tey tamit du question te ni ku jël pilule rek mën nga am cancer du sein du loolu dañ ne jël pilule boo xamante ni dafay yàgg parce que pilule yooyu ba pare pilule œstroprogestatif wala pilule boo xam ni œstrogène kase la nga jël ko. mën na la indil gàllankoor bu boo ko jëlee lu yàgg mën na nekk loo xamante ni mën na favoriser cellules yooyu ñu doon wax ñu développer développer bu ñu leen laajul parce que dañu am surdosage loolu yëpp nit ki tamit daf koy bàyyi xel comme ni ko Khady waxee ne deux ans nga nàmpal sa doom ba mu fer ba nga xamante ne doo neef ndax loolu la ñu yëpp digle l'islam loolu santaane ñun ñi tamit di faj loolu la ñu bëgg l'essentiel bul neef voilà beneen bi ci tegu tam ci facteur favorisant yi xëy na moom lim na yëpp lu ma ci ñëwaat ba mu jeex mais am na si boo xamante ne daf ñu ñor muy wàll stress tey jigéen ñi mënoo dut baaraam ne lii moo joxe cancer du sein de mais téeméer boo jël boo xoolee juróom fukk yi wala juróom benn fukk yi wala juróom ñaar fukk yi xalaat bu bari moo leen ko yóbbee pour lan tey jii damay wax toujours fu ma dem wax ko ki la tax a xalaat wala ki ki ki jar ngay xalaat ba indi sa bopp jafe-jafe boo nekkee si jafe-jafe yooyu boo ubbee sa fenêtre xool nii da koy gis mu nekk di xappi di faw fawam di kaf di ree di xappi di def lu ko saf yow nga toog ak sa mettit ndax la soo deewee bu dee jëkkër la bu dee doom la bu dee keneen ak keneen ak keneen keneen keneen keneen ki ci biir kër gi lu ci say woon kenn ku si nekk yow yaay créer sa atmosphère booy épanouir wu problème boo mënti am xoolal noo koy partager ak ña ñu jàppale la ci nga génn ci avancé dem ci leneen mais stress bi daal moom bu ñu sañoon ak sang yi tamit ñu jàppale soxna yi ci biir kër yi cancer bi day dal góor de mais nag un pour cent la moo tax du ñu leen tudd mais cancer ween ni mu dalee góor noonu dalee jigéen mais sang yi nañu jàppale soxna yi ci biir kër yi wàññi leen coono yi wàññi stress bi di créer loo xamante ni xale yi ci kër gi nañ xappi yaay yi xappi kër gi di neex mooy li ma la wax xam nga tey jii jigéen ji bu uti lu mu def te góor ga mayu ko nu mu ko defee du ko mën a def moo tax sang yi ñooy jàppale soxna yi ci biir kër yi créer loo xamante ni jigéen ji dina sentir boppam ba lu bëri ci biti du ko bul bouleversé du am jotam sax ndax loo amul jotam doo toog di ko xalaat ñu bàyyi ci xel daal stress bi bëri na mu ngi noonu daal pour bañ a guddal te temps bi mu ngi dem ñu wax ci cancer du col de l'utérus bi wax nga ci facteur favorisant yi mooy cancer buntu butitu njurukaay pourtant bu bi butitu njurukaay ci boppam dafay am cancer waaye lan moo tax ñu ne buntu butitu njurukaay ñu ne ci yu ëpp la. parce que kuy dugg ci kër nag di nga jaar ci buntu bu fekkee ku ñëw mbëkk ku ñëw mbëkk ku ñëw mbëkk rido bi dina tilim dëgg la moom wax na ko ne jaxasoo bu bari maanaam waxuma jaxasoo ak sa borom kër maa nga am ñooy séqal ñu bari comme bu tayee nga am ànd ak kii bu subaa nga ànd ak kee bu subaa nga ànd ak kee bokk na ci li nga xamante ni moom mooy favoriser li nga xamante moom mooy cancer du col de l'utérus ndax infection dalay yàpp te bu fekkee góor gu nekk am li ngay séqal ku si nekk yor na papillomavirus ñoo tegal la day gën a gaaw bu dee benn sax mën ngaa neex a lijjanti mais bu dee yu bëri day jafe beneen bi si tegu tamit wax na infection yi nga xamante mais damay wax infection yi nga xam fajuñu leen walla faj bi baaxul walla faj bi baaxul ndax moom wax na ko de nee faj bi baaxul bi dafa ne jigéen ji dafa war a faju boroom këram faju parce que boroom kër gi bu fajulee te jigéen ki rek faju jëkkër bi fajul jigéen bi foofu laa doon jëm. foofu laa doon jëm. en waaw moo tax nag jigéen ji. xam nga tamit su ma ñëwee. dem hôpital ñu ne ma dangaa am infection. bindal ordonnance. taa aminte nga ñëw war a jox sa borom ko ordonnance bi ñëw ne ko tëyal. Ah. feebar baa ngi nii yaa ma ko jox damaa am infection. mun la joxuma la ko ndax man awma infection. ndax moom moom wanewul loo xamante ni am na infection mais yow yaa am infection dem naa kat ñu seet ma nee nañ damaa am infection infection bi ma am kat da ngay faju ma faju waaye kumba mii di sama wujju moom itam day faju dama koy faral di wax nag xëy na lapsus la mais dama ni gën na boo ci riijee ba jëkk raxas gënn gi bàyyi kuur gi loo dëbbaat mu saf bi saab te kuur gi mooy mooy dëbb bii mooy dëbb bii mooy dëbb bi kon jigéen boroom kër yi nañ bàyyi xel tamit ci loolu xam ne traitement yi ñuy jox soxna yi ñu leen koy indil du soxna bi mooy dem ne sama boroom ko bindal leen ko garab faj bi moo laaj loolu te comme faj bi da koo laaj foofu ñun ñëpp ñu faju pour mën a raxas kër gi ba mu set euh, ci kii bi tamit cancer du col de l'utérus bi raxasu bu bëri bi dafay favoriser les infections te bu favoriser infection yi amatul dara lu la protéger bu boobaa tamit facteur la ci virus yi mën a teg foofu pour mën a indi yeneen gàllankoor xam nga nee na dina am disparité ci signes yi mu wax mooy sëy bu sëy muy metti waaye damay faral di wax ne nii sama loxo bii mën naa cee tarxiis mu xoosu su ma fajee mu wér mais su ma fajul mu indi beneen gàllankoor sëy bu metti boobu na day wane ni ci biir des na wér am na xoos-xoos bu fa nekk boo xamante ne war nañ ko faj xam nga nee nga doomu jàngoro bi mën na nekk ci yow 10 ans mu ni booy defee dépistage tous les deux ans au moins ci biir 10 ans yi nañ am benn bis ñu gis ne ah am na lu fi ne waaye bu fekkente ne defoo dépistage boobu te doomu jàngoro bi nekk fa bunt bëtitu njurukaay bi ci boppam lay mel ni lu muy xoos nànk-nànk di ko xoos ngay dem ba gis ne mu xonq coy mel ni lu ñu rocci te taa amita nee na bunt bëtut njurukaay dafa wala rose wala rafet ba boo ko xoolee yenn saa yi ngis mu ubbi daal ne ah col bi rafet na macha allah voilà loolu yëpp pour wan nit ki ne ko am na foo xamante ne bu fa yëfi yeggee dafay indi gàllankoor kooku noonu nag bu fekkente ne dafa am xoos-xoos ci buntu bëtut njurukaayam bu sëyee dina metti te bu fompoo dina gis mu am ay tache deret te boobu sax moo gën sedd mën nga jékki-jékki rek gis ay toq-toq deret de fekk ménopausé woon nga ba pare maanaam arrêté woon nga sa régle gisatoo ko woon lu mat deux ans yu mat sëkk te gisatoo nga jékki-jékki di gis deret dafa la war a alarmer nga daw ñu xool la sa buntu buntu njurukaay lan moo fi am mën nga tamit si biir règle diggante ñaari règle yi nga ciy gis deret loolu noonu ñaari diggante diggante règle yi boo ci gisee deret day dalay wan ne am na lu xew demal ñu seet la c'est alarmant ah ñu wane ñu xam ne rek ne bari na signe yoo xamante ne du du du carrément bu ñëwee rek cancer la waaye war na la tax nga jóg même boo jógul woon comme nañu dépistage ñu koy def tous les deux ans boo jógul woon nga jóg dem xool sa bopp ci ween bi tamit ci signes yi mën nga gis sa ween mu neewi wala mu changer couleur wala mu am noox noox yooyu yëpp war nga ko mën a bàyyi xel ci ween bi aussi mën nga jékki-jékki nga gis sa sa tus bi li ko wër mu mel ni lu am ay àq yu ci nekk nga dem ñu xool la mën nga gis itam muy génne ndox boo xamante ni nuruwul la soow nuruwul la leneen gën a jege deret wala mu jege dëtt ba mu mënti doon na nga dem ñu xool la ci ween bi tamit mën nga gis mu am ci poqataan bi mu néewi néewi wala muy metti nga am càqaar boo bësee mu metti nga xam ne lii am na lu ko waral nga dem ñu xoolal donte yóbbu dara ci ween bi maanaam daal jigéen ji nay bàyyi xel boppam faatu nee na nga def sa autopalpation autopalpation boobu dafa am solo parce que xam naa ni comme ñu ngi euh, wax di mu ngi bëgg a tirer la longue te xam naa ne émission bi léegi mu jeex ñu baal ñu rek ñu dugg foofu parce que tamit dafa am yoo xamante ni prévention la nit ki da ngay xoddeeku bala ngaa lakkale comme ni ko Fatou waxee mu dee cancer di col da ngay def test de mën nga am dépistage nga dem ñu defal la dépistage IVA xool ndax am na des cellules précancéreuses maanaam micro ba fa nekkoon ndax amul lu mu commencé di yàq pour ñu xool ko bu ko amee ñu xool naka la ñuy def pour jël ci xool bu dee moom la ñu teel a jóg mën nga def test léegi sax dangay def test papilloma bi pour xam ne même bu fekkente ne amul xoos-xoos amul dara ñu xool ndax doomu jàngoro ba comme dafay def 10 ans doo ko def ay ñoom ndax mu nga fa toog wala déet comme ça bu fa nekkee ñu faju bu dee boobu tamit bu bu loolu jàllee ñu def euh, test IVA ñu gis ne c'est positif am na ay lésions ñu def loola FCV nga def FCV ñu xool frottis boobu moom mooy tax ñu xam ndax lii doomu jàngoro bi mu ngi fi wala nekk fi ak ci ban anam la fa nekkee bu dee ci cancer ween bi ñu ni la ngay def autopalpation chaque weer faat nee na boo gisee rek jour bi nga gisee rek ngay commencé compter ba ci fukkeelu fan bi nga taxaw ci seetu xool yëkkati say loxo simmeeku xool sa yaram ndax gisoo benn changement ci yi ñu wax sànq ndax am na ci wala amu ci soo paree nag nga palpe ndax dañ ni bul la faatu wax na ko bul nag boo ko làmbul doo ko daj yee da ngay xool mais bi da ngay làmb soo làmbee ba pare nga bës xool ndax dara dina génn wala déet boo ko dee def chaque mois bis bu am dara amee boo làmbee daj dara di nga ne ah lii kat daan daaw ma ko si te daj naa ko ci nga dem ñu xoolal la lu mu doon ndax yooyu yëpp ci prévention bi lay dugg waaye tamit am na bu gën a neex ci canceru col bi dañu wax ne sunu doom yi nga xamante ne doomu jigéen ñi ñu ngi toll si juróom-ñeenti at ba fukki at ak ñeent ñu yóbbu leen ñu defal leen vaccination bu ñu gisee bu njëkk ba cancer du col de moo gënoon a yéeg cancer ween mais léegi lan moo tax cancer ween gën a yéeg cancer euh, col de l'utérus parce que fee ñu ngi def ay dépistage di orienter nit ñi di leen gën a euh, jàppale fee nag autopalpation bi jigéen ji nga koy wax dañ koy minimiser te fekk na mooy mooy li leen di li leen di jariñ stress bi yooyu yëpp noonu jaxasoo ci mën na tax lee gën a yéeg mais bu ñu jógee ñun ñëpp laxasaayu gën a topp yi ñu ñuy wax dina tax yëpp mën a wàccaat xam naa jaxasoo na. mais ñu ngi ah, ah. jéggalu bu baax. <laughs> ci ci kàddu yi waaw ndax cancer dafa nekk feebar boo xam ne du ma ne kenn mënu ko faj de mais boo yéexee dem kenn du ko faj. du ma ne tam munoo ko yëg ci sa yaram mais tamit bu bàyyiwoon xel sa yaram doo ko sentir du kon kenn ku nekk foog ngay bàyyi xel sa yaram surtout ween parce que ween tam boo ko làmbul doo xam lu fa dëkk. parce que ween dafa am ay globe yu fa dëkk. Mhm. te globe yi boo ko làmbulee doo xam ndax man am naa ay globe wala déet. léegi nag bu amee lu ko gane si ci globe yooyu. boo ko làmbul doo xam ne am na lu ma gana si kon foog ñuy miin suñu suñu suñu suñu ween yi ba mën a xam lan moo ci nekk utérus bi tamit noonu xam naa émission bi ngi waaj jeex mhm. mais buggoon naa ñu dugg tuuti rek ci complication yi mais tamit euh, hygiène bi tamit ñu wax ci parce que tamit euh, vraiment jigéen dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo set ba mu ëpp suba soo xëyee tànk raxasoo sa sa vagin ba mu set da ngay jàpp na yow da nga tilim te loolu nag defe naa day indi problème ci wàllu jigéen. parce que vagin dafa am ndox boo xam ne fa la dëkk yàlla moo ko fa def. microbe bu ñëw ndox moom mu fa dëkk mooy xeex ak microbe bi mu dellu mais tant que yaa ngi koy raxas chaque jour yow amatoo benn soldat ci sa biir ruxum boo xam ne mën na sa biir utérus boo xam ne mën na xeex ak ñooñu nga xam ne ñooy ñëw. kon ci balaa ñuy conclure rek ñu dugg ci tuuti ci complication yi. dugg ci hygiène bi hygiène bi nag dafa bari wuute. parce que hygiène intime am na. hygiène alimentaire am na ci la bokk. hygiène alimentaire am na ci ci la bokk parce que ñun lu ñu neex la ñuy lekk nu ñu neex la ñuy lekkee nu ñu neex te ci biir lekk bi multiplication de cellules mën na am ñàkk def sport multiplication de cellules mën na am kon hygiène de vie jigéen ñu wax ci tuuti comme saa ñu mën a xool naka lañuy ñuy euh, seen li ci des. ñu bàyyi xadikat am na solo bu baax donc bu delloo ci complication yi rek bu si gën a metti rek mooy métastase bi cancer di def. Mm-hmm. te tante lu na ko wax léegi maanaam bu fekkee ni xale bi bon ci kër gi bon bi ci moom dong la yem amaana dina doon neex a lijjanti mais imaginer mu wàll ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ñëpp au lieu bu yem si ween bi yoroon a yem si ween bi dafa fa yem mun na continuer mun na laal poumon yi mun na laal feneen a feneen fu dul poumon ci wàllu cër bu nekk si yaram mhm. mun na dem ba tasaarewul sax si si deret bi donc gis nañ ni métastase bi mooy complication majeure cancer moo xam na buy dal ween moo xam buy dal bunt bi ci njurukaay ndax comme ni ko temps Anta waxee léegi bunt bi njurukaay bi mun na commencé di yéeg jëm ci butit njurukaay bi mhm. wala mu commencé di xaw a wàcc di laal vagin bi mooy partie bi nga xam ne ni fa lay soxna si di ànd ak borom këram mhm. donc gis nañ ni métastase yi mun na laal cër bu nekk bi nga xam ne nii mu nekk si yaram bi ba dem ba wàll sax deret bi nga xam ne nii fa la yenn cellules yi mooy comme globules rouges genre yu noonu comme ni ñu tëddee tuddee leucémie bi mën na ko sax inde donc bu delloo ci wàllu hygiène bi ngay wax sànq hygiène intime de la femme yaakaar naa moom it bokk na ci yoo xam ne ne daan dañ ci daan faral di wax lu bëree bëree bëri te ba dañ ciy continuer di ci wax parce que voilà parce que infection yi mënoo kaa traité te yow expliqué woo femme bi l'hygiène donc hygiène boobu noonu ñu njëkk ci hygiène intime mi nga xam ne nii ci kanamu jigéen ki ci la dellu comme ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. nit ñi dañoo yaakaar ni raxasu bu bëri bi mooy tax a set alors que raxasu bu bëri dangay ngay sa bopp comme ni nga ko waxee léegi dafa am suñu kanam ñu ngi tuddee flore de Dodelane. Mm-hmm. flore boobu noonu dafa am ay soldats yi fa nekk. nga xam ne tey jii bu benn microbe duggee. ñoom ñoo mën a jóg xeexal microbe ba dala jox infection mhm. mais imagine chaque jour booy raxas chaque jour booy raxas surtout am ñoo xam ne dañ jël seen loxo dugal ci biir di raxas li gën a bon voilà li gën a bon a chaque fois dañ lay wax ne raxas ci kaw rek nga war a yem mm. mais bu jógee sa loxo dugal si biir rek xamal ni amaana yaa ngi inoculé sa bopp sax mm. yeneen germes yu fa nekkul woon aussi yaa ngi agressé sa flore mi ngi noonu donc raxas bu bëri bi day dem dafay agressé flore de de line bu nga xam ne pour li lay protéger pour les infections yi nga xam ne ñu jógee ci bitti dafay xaw a difficile mm-hmm. beneen bi mooy ñi nga xam ne nii duñu faral di raxasu mm-hmm. donc loolu aussi kenn xamul noo ko mën a tuddee je sa sais pas ndax am na wala mais tamit foo ñu insister ci te mooy kanam dëgg la dañ koy raxas mais raxas bi tamit warul ëpp comme ni ñu ko waxee léegi donc bokk na si nga war a raxasu soo ànd sa borom kër ba pare war nga def benn toilette vulvaire pour au moins bu fekkoon am na ay quelques germes am na germes sensibles yoo xam ne nii un simple lavage boo xam ne nii mën na leen a éliminer mi ngi noonu donc lavage vulvaire boobu ngay def mun na éliminer un certain nombre de bactéries euh, beneen bi boobu période yi nga xam ne da ngay nekk di gis règle aussi nit ki war na fonk bu baax toilette intime am donc parce que xam nañ ni deret dafa nekk benn millier boo xam ne nii donc germes yëpp dañ fay mën di dund aussi di développé wu. donc fekkee période yi ngay gis règle dooy faral di raxasu wala tamit changement yi ngay def ci coton yi du bëri maanaam mën nga yendoo coton bi wala nga fanaanoo moom xëy yendoo waa ko donc loolu dafay indi yenn xeetu problème ci sa kanam donc yooyu aussi dafa jaar tamit ñu si bàyyi xel. mais aussi période yi nga xam ne ni da nekk surtout ci infection yooyu aussi war ngay faral di raxasu bu ñu waxee raxasu bi nag si yooyu noonu avec les savons yoo xam ne nii seen pH méngoo na ak kanamu jigéen ndax kanamu jigéen am na benn pH boo xam ne nii moom moo nekk ci moom maanaam c'est un peu assez c'est pas basique mais bu fekkee danga nga jël saabu yoo xam ne nii méngoowut ak sa pH kanam amaana boo raxasowee parce que am ñoo xam ne dañuy raxasu benn savon mu jox leen ay infection wala mu jox na ay irritation mm-hmm. donc façon saabu ba utiliser la moo tax dañuy bëgg yi ngay raxasoo mu nekk sur ordonnance mm-hmm. ndax ki lay bindoo produit bi xam na ni produit bii kat mun nga ko utiliser mm-hmm. wax la bu fekkee dañ ko war a diluer nan nga ko war a diluer maa na nga ko war a raxee ndox bu fekkee doo ko diluer nga xam mais dem ci jaaykat bi si koñ bi i savon bi de moom boo ko defee macha allah ah. parfum neex naa ngi nangam xamoo voilà mu ngi noonu xamoo peesam fan la toll nga ñëw def ko sa kanam donc yaa ngi lor sa bopp donc moo tax raxasu bi aussi ak savon yi dañuy bëgg mu nekk sur ordonnance nga dem jënd ko pharmacie milieu bu adéquat nga ñëw utiliser ko donc war nga def toilette vulvaire ak savon yi ci yooyu noonu boo ànd ak sa ko ba pare wala boo nekk ci infection wala boo gis règle en dehors de ça bu fekkee ne nekkoo ak benn góor nekkoo ci infection sa kanam set na nekkoo ci peut-être règle un simple lavage avec de l'eau doy na ndax savon yu bëri aussi bu yàggee dafay agressé voilà dafay détruire flore bi donc un simple lavage baax na donc yooyu yëpp ñu dafay jar ñu si ñu si bàyyi xel ci wàllu hygiène intime bi beneen bi ci hygiène intime bi aussi dañ siy duggaale ba ci suñu jiitlukaay les sous-vêtements parfois dañuy bëgg muy nekk coton 100 pour cent donte leen nag parfois léegi dafay jafe dañuy gis ñu ne lii coton la sax fekk daf ko jege mais du coton à 100 pour cent mi noonu du ñuy bëgg mu xat nay nay xaw a yaatu tuuti parce que yenn xataay tamit seere bi wala fekkee tissu bi nilon lay doon wala am nga parfois nilon du absorber les liquides ci sort parfois parce que bu dee nilon waaw day mm, te dafay tàng nilon aussi dafay tàng te chaleur bactérie moom la gën a bëgg mm-hmm. les gènes moom lañ gën a bëgg pour développer mm-hmm. moo tax coton moom moo ci gën aussi bu mu xat na xaw a tu ay ampoule tuuti ba ci soutien gorge yi dañ ko fay di wax seere seere wu bëre bi aussi nag sa bopp aussi dafay dafay donc dafay xaw a doy waar moo tax hygiène vestimentaire bi aussi dafay dugg donc lu am solo la bañ a tegle tegle yu bëri sol slip bas tubéy pantalon donc tegle boo xam ne yow du am benn échange d'air bi am donc yow dafay dugg ci wàllu hygiène intime ku jigéen ki te ku jigéen ki ni mu waree amee hygiène intime ku góor ki aussi noonu la ko war a amee donc duñu leen mën a épargner parce que ñoo ñoo dëkk ñun ñooy ànd di jaxasoo moo tax ku jigéen ki lépp lu mu fagaru ku góor ko aussi war na ka fagaru ndax imagine benn góor nga yor benn caleçon doxee ko une semaine yàlla boo sangoo moom ngay solaat alors que germe yaa ngi biir donc même boo feebaru sax ki nga dëkkal day dëkk di feebar comme ni ko taa Anta waxee léegi tey ji booy prescrire ordonnance infection d'abord li njëkk mooy sensibiliser te mooy wax ku jigéen ki ne ah infection da nga amee mais infection bi nga am mën na jóge si yow comme mën na jóge ci sa borom kër comme mën na jóge si seen ki ngeen dëkka mais li gën mooy boo fajoo yow dina am garab bu ñu la jox nga ne sa borom kër daf ko war a jël pour fagaru même bu fekkee feebaru sax moom borom kër mu fagaru ndax infection dafay wàllante aussi mu waxtaan ak beneen soxnaam bi mu dem ñu bindoo ko garab donc donc loolu yëpp dafay dugg ci wàllu hygiène intime bi mooy traitement bu baax bi ndax moo ñu permettre ñu bañ a euh, développer bu baax infection yooyu noonu mooy permettre mu jëm ko arrêté ba nga xam ne dugg ci biir ba ñuy jox ay lésions cervicales ba ñuy jox ay à la longue des cancers donc yooyu yëpp aussi dafa jar ñu bàyyi xel beneen mooy alimentaire bi hygiène feebar boo dem hygiène alimentaire dafay dugg muy lekk bi donc ni ñu war a lekkee aussi daf see jar a bàyyi xel parce que ñoo ngi faral di dégg ñu boo boo jël yenn ñamee togg ko ba mu xama yëpp ay signes cancérigènes donc yooyu yëpp lekk dafa war a am dafa war a war nañ war nga ko lekk mu conserver vitamine ya mu am bu fekkee dafa renfer dafa renfermer di fer mu conserver fer bi mu am mais jël lekk togg kaa togg toog ba ferñeent yi mu am alaalong la longue feebar la lay jural mais du la jural euh, euh, njariñ donc loolu aussi dafa jëm si bàyyi xel ba tey hygiène alimentaire bi ñuy utiliser ay tabac ay alcool aussi comme que gis nañ ni kat ni ko tante weexee ci facteur favorisant yi la bokk jar nañu bàyyi ko xel ku ko doon def arrêté ko donc ndax yooyu aussi loo xam ne euh, jàngoro la lay jural jural la njariñ donc du am importance nga koy faral di di kii lu bëri donc bu ko defee xam naa dinañ dinañ ñëwaat après bu baax ci wàllu prévention yi mais ci hygiène bi daal ci hygiène yi mun na wax te mooy ñuy am hygiène alimentaire bu normal pas trop gras lu niin du ëpp li ñu wàññi ko pas trop sucré donc mi ngi pas trop bi ah. ngi noonu donc am benn euh, hygiène alimentaire bu équilibré aussi ñu respecté suñu hygiène intime ñu yemagum foofu si ñaar yooyu noonu bàyyi tantaka anta xam naa léegi mu jeex de jeex na sax <laughs> mais dañuy bëgg rek nga dugg tuuti ci prévention bi tuuti rek comme saa ñu mën a conclure ale parce que waxtu bi daf ñu dab ñu bàyyi la ak prévention bi surtout nag lutte contre les IST mm-hmm. waaw daa mel ni xanaa di gën a jaasa jaajëfal Xadi rek presque je pense que ni def na le tour ci li nga xamante ni moom mooy prévention bi euh, comme niñ ko waxee rek comme cancer du col ak cancer du sein te ñaar yooyu moo ñu gën a soxal bu waxee prévention bi wax hygiène alimentaire hygiène vestimentaire hygiène corporelle et sexuelle yaakaar naa ni bu ñu waxee ci hygiène yooyu dina am lu mu wàññi. ci aussi bien ci cancer du col ci cancer du sein ndax bu fekkee ci wàllu lekk bi la xëy na sax ñu ngi wax diwlin di sens yeeg yooyu yëpp xam naa loolu moom gars yi léegi maîtriser nañ ko bañ a sensal sa diw xool ni ngay toggee pare ñu éviter les euh, substances grasses yi nga xamante ne dañoo saturé ñu utiliser matière grasse yi xamante ne dafa insaturé surtout ay huile d'olive ay ay ay ay ay poisson wàññi yàpp rouge viande rouge bi mooy yàpp xar beeg yàpp nag bi nga xamante ne dafay bëri graisse wàññi li nga xamante ne moom mooy ginaar yi sax surtout pooju ginaar yi moom mooy gën a mooy gën a ëpp graisse que li nga xamante ne moom mooy moom mooy dënn bi mais nag nit ki nag day xool lu ko lu ko neex ñu wàññi yenn épices yi surtout jumbo yeeg ñoomin seen yooyu yëpp noonu noonu amul benn xorom yi ci nekk xorom yooyu dafa am des substances cancérigènes yoo xam ne moo ci nekk au fur et nga koy lekk mën na la indil ay jafe-jafe beneen bi si tegu tamit mooy euh, ñuy utiliser les épices naturelles muy wàll ci wàllu alimentation bi di lekk fruits ak légumes surtout fruits ak légumes mooy ñuy gën a jàppale ci éviter li nga xamante ne moom mooy cancer yi nga xamante ne moom la ñuy dund parce que dina jàppale cellules mën a développer correctement beneen bi si tegu tam ci prévention dañu wax ne jigéen ji xëy na dina def autopalpation sur les seins chaque mois waaye tamit bu xasee ba dugg ci néegu sëy entre vingt cinq ans jëm kaw dugg na ci néegu sëy quarante ans yooyu noonu muy def mammographie bu fekkente ni defal nañ ko mamographie tous les deux ans bu amul dara tous les deux ans mën na ko def mais bu fekkente ni daf ci gis dara mën nañ ko jox mu gën a jege walla facteur de risque yi ñu waxoon mu nekk mu am ko muy def bu rapproché ça dépend ci médecin mën na la wax 6 mois wala chaque année pour mën a contrôler bu dee kan euh, li nga xamante ne moom mooy euh, prévention bi ci euh, cancer du col de l'utérus wax nañ ko sànq yaakaar naa ci dépistage yi nga xamante ni moom la ñu wax ñu di ko def ak moytandiku yenn exposition yi multi multipartenaires yi ñuy am yooyu yooyu yëpp da koy da koy jaxase wàññi tamit li nga xamante ni moom mooy lu ñuy indil infection xëy na wax ngeen ci dugg ngeen ci ci euh, kii yi euh, lavage intime yeeg toilette intime yeeg yi ci yi ci aju mais tamit jigéen ji muy faral bu xasee ba dugg ci néegu sëy dafa war def FCV tous les deux ans ñaari at yu nekk war na mën def frottis même bu ko dara darul frottis boobu nag moo koy permettre ñuy xool ndax feebar jàngoro mu ngi ci boo amul moyen def frottis boobu boo déggee ñu ne dépistage am na canceru col wala canceru ween nga dem ñu defal la na yaakaar octobre rose moom chaque année la kon bu fekkente ne amoo possibilité def deux ans frotti di nga mën a def lee buñ gisee lu jar def frotti ñu wax la nga dem def frotti mais jigéen ji du toog noonu rek ci prévention bi fexe aussi tamit suñu doom yi vaccination bi ñu bàyyi ci xel ñu gën ci insister ba suñu njaboot gi mën a def seen vaccin pour éviter ëllëg ñoom it li ñuy jànkoonteel ci tiitaange ñu bañ ko jànkoonteel parce que dina wàññi lu bëri muy wàllu prévention ci cancer du col de l'utérus xam naa daal taa aminte comme temps bi jeex na waaw comme temps bi jeex na euh, ñu ngi jéggalu bu baax nag xëy na wax ji xaw na jaxsoo mais lenn rek moo ñu gën a yitteel moo jigéen ñi ñu gën a bàyyi xel seen bopp di saytu seen bopp mm-hmm. damay wax ne nga waaxu dem hôpital ñu faj la man moo ma gënal sa doom gàddul di la yóbbu wala sa borom kër gàddul di la yóbbu soo demee ñu wax la ne am nga dara sax dina fekk ne booba dominé gu la di nga mën a waaxu faju sa bopp ci sa sutura si sa dal ak si sa tey ba keneen ku la wër itam mën na ba a xam ne sax dund nga feebaru jàngoro bi mais am na foo xam boo fa toogee di xaar boo waxee ñu ne demal ci diw mu may la garab demal ci diw mu may la ñaan demal ci diw mu tafal la ci boo tafee li góom bi wér muy gën di développé waxuma bu ñu dem ci feebaru olof faju olof bi mais tamit sa fajum tubaab nanga ko topp parce que foofu la ñuy mën a xamee ni lii moo la dal ñu mën la topp faj la comme ni mu waree ñu ñu gën ko bàyyi xel daal euh, di jaajëfal ñëpp nag di jaajëfal ñëpp ci déglu bi comme dañ ko séq ak sunu nawle ak di sunu naataango muy xaddi Diop dañ koy bàyyi moom itamit lim ci war a indi mu indi ko ci ñu jéggalu bu baax taa Khady di la ñu ngi lay jaajëfal ci teew bi parce que woote nga wuy si yombul Khady dañ lay bàyyi yow it nga tàggatoo ak askan bi ba beneen incha allah amiin ko xam naa comme ni ko taa waxee rek lépp matale ci wàllu prévention bi te ni ko waxee rek prévention majeure moom repose sur le dépistage mhm. donc dépistage moo ñu mën a permettre ñuy saytu suñu bopp aussi bu ñu gisee dara li jar nga xam ne nii xamoo ko woon wala miinoo ko nga gaaw dem hôpital. Mhm. mu dellu ci wàllu ween bi nga xam ne mu ngi ko def chaque mois. Mhm. dellu ci wàllu col de bi nga xam ne chaque année mu nga bénéficié wu. ci mhm. octobre rose bi def ko. chaque deux ans les frotter comme ni ko suñu taa Anta waxee donc macha allah am na solo ba ci vaccin yi mu indi sànq pour les jeunes filles. puisque am nañ chance am vaccin ci feebar bu doy waar. donc dafay baax ñu siy bénéficié wu. donc entre 9 ans ba 14 ans jeunes filles. nga xam ne nii tamit musuñu am benn acte sexuel aussi. Mhm. ñooñu aussi mun nañu bénéficier wu ci vaccin yi. maanaam ñu waxee benn acte sexuel maanaam acte sexuel yemoo rek ci au niveau de l'appareil génétal mhm. parce que mun nga amee acte sexuel par la bouche. contact par la peau ak yeneen xeetu contact donc mhm. koo xam ne ni musul am benn genre acte sexuel aussi. donc kooku aussi mun na si mën na si bénéficié wu ñu ngi noonu donc ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax mm-hmm. di jaajëfal ñu mm-hmm. doon teewlu mm-hmm. xam naa di la jaajëfal taa amin ak taa antax dëgg fa yàlla di ñaan yàlla tamit lépp loo xam ne wàcce nañ ko fi. Mhm. lépp luy njariñ yàlla nañ ko bokk jariñoo ñu nañu ñu mhm. am ñëpp mhm. lépp luñ si jum aussi ñu jéggal ñu ko am ni ab dongo daal comme ni ko waxee sànk rek mooy nekk di <laughs> di di di ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di delluwaat di sant suñu kilifa ak suñu capitaine ak njaboot yëpp insha allah salaam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Anta Touré madame Ndiaye Khadija Khadi Diop dëkk Yëmbal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci wuyu bi ngeen ñu wuyu si bokku téléspectateurs yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey suñu ñaari sage-femme yi indil leen ko ci wàllu cancer du col ak cancer du sein mu nekk euh, feebar yu metti nga xam ne bu duggee ci kër dina loofal kër ga bu duggee ci kër dina jànn xel képp ku nekk ci kër ga ñuy ñaan jigéen boo xam ne yaa ngi toog di déglu wala góor nga bàyyi xel li nga xam ne mooy cancer fiñ la wax nga ci wàllu comportement fiñ la war nga jaar ci wàllu prévention nga jaar fa ndax doy waaru feebar bi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a am vaccin bi buy 9 à 14 ñu bàyyi leen ñu jël ko ñi nga xam ne nag ñoom ñoo war a def dépistage te kuy def dépistage mooy ki nga xam ne dem na ba am borom kër moo war a dem defi dépistage bu fu mu dégg dépistage amul moyen pour defi dem defi ko clinique wala def ko feneen na dem defi dépistage am chaque année mu dem def dépistage am autopalpation yooyu yaa koy defal sa bopp suñ la ko jàngalee nga fexe ba chaque mois bu sa règle jeexee à partir du dixième jour sa règle bu jeexee rek nga def sa autopalpation nga mën a xam lan moo dëkk ci sa ween ak lan moo dëkkul ci sa ween kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Afia mi ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi ngeen teewlu suñu émission di leen jox dig daje ba beneen incha allah